bëggal euh, jour mariage loolu la mhm. ah. ñu ñëw ci mariage yu Aziz Ndiaye Aziz Ale euh, ci war a traité nag bari na quand euh, point par point la benn bi mooy Aziz Ndiaye da doon may doomam maman ki mu am ak maam Binta yàlla na ko yàlla yërëm ah. Miss Ndiaye ak ay Rassoul créé nañu polémique ci xew bi parce que Miss indi na plus de vingt trois millions la ñu wax non plus de ëpp na loolu ëpp na loolu xaalis bi mu indi xam naa dinaa ci ñëw léegi léegi pour xool xaalis bi ñaata la li Miss Ndiaye indi xaalis bu bari la euh, ndax moo yoroon xale bi donc nga nekk ak sa wujju mu nelaw bàyyi la doomam nga yor ko yor bu rafet vraiment ba mayee ko tey mu sëy nga teral ko ci ay millions mais Aïcha Rassoul dafa ñëw ci xew bi Aïcha itam bi mu ñëwee dafa am nu mu ñëwee loolu moo créé polémique bi ay Aïcha mooy ñaareelu Aziz bi actuellement donc dama lay bàyyi maam nga développé. waaw Bamba xew bi. Hmm. mën naa ne ñëpp ko gisandoo mu rafet nag ci bëtu ñëpp man de wax dëgg yàlla sama rongoñ sax daa dal ci sama tën démb hmm. ndax lan Aziz Ndiaye nit ku baax la nit ku yiw la nit ku mën a téye jigéen la nit ku mën a suturaal jigéen la. Hmm. ndax lan ku nekk xam ne ne tu xale yi ndeysaan seen yaay nekk fi mu nekk ak aawoom nekk ak ñaareelam bala may dem ci jabar yi rek moom acte bi mu taxawee doomam ji rek. Mhm. ku ne bëgg ngaa am baay bu mel ni Aziz Ndiaye barke allah ji farlu mbakki Aziz Ndiaye comme sëyal boo tàgg moom bu la bu la bu la njëkkee denc ci suuf sa xel day dal. parce que jabur xamul lu téye ku ko téyel ay doomam. Mm-hmm. démb bi xale bii jógee salon mu dem jàpp ko ci loxo dugg ak moom ci biir wax dëgg yàlla doy na waar. mu toogaat ci jàkka ji wax ci yaay ji wax yu wax yu doy sëkk ba tuur ay xéewal kon nag kooku bravo rek lañ ko mën a waxal. seede yi mu def ci maam bi yi mu def ci soxnaam si. ren ngi koy takk c'est mille la amoon salaire. Mbàkke sëñ Fallou Mbàkke mu dem nag ba yàlla dimbali ko mu dem ba di ko fàttee sax jox dépasse moom mii ku jigéen ki moom muy jox boppam dépasse togg añ togg reer su dikkee sax ne ko fàtte nga ma koo jox lebal ko nag lebal bu baax moo taxit nag fay na ko ko nag ba mu doy sëkk ndaxte Aziz Ndiaye xew mee lu fa am avec plaisir ci moom parce que bañ ne ko ba langue yi amul bi lenn lu ci bàyyee kenn dafa accueillir ay doomam ba xew mi jeex téye doomam ba xew mi jeex maye doomam nag ci faratas yàlla ak sunnaas Muhammad kon ku soñoon am baay bu mu mel ni Aziz Ndiaye ma ci aawo bi aawo bi dafa nekk nit ku baax Miss Ndiaye ndax nag waa kër Aziz am nañ fulla am nañ fayda bu fekk toon na yoru xale bi yoru yoru xale yi yor bu baax bu waree gël dikkee du ko nangu hmm. ay bàjjanam a ngi fi xale bi am na ñu bokk ñu ñu ñoo xamante ñoo ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay kon ñoo ñooy nangu warigaru xale bi mais moo nangu warigar yi wax ci wax ju rafet ne sama doom yi su ma amee benn damay dem jox ko doomi euh, kii aawo bi mooy ki dem. maam Binta tax sa samay doom toog. Mm-hmm. mu wax nag ba ba dënnam tàng. kon kooku bu warigal li xale bi dëkkee ñu teg lépp ci loxoom loolu war na ndax nag moo téye xale yi def leen kon doomam ñaareel bi defut lu aay fi fii mis taxawee rek fa la taxawee. parce que xam nga la moo tax ñaareel bi bu defoon lu ay sax bal day tàkk ci kawam. Mm-hmm. ki ko encadré tey ko téye ko muy Ndiolé Tall. Ndiolé moo encadré euh, Aïssa Rassoul. waaw Ndiolé Tall moo doon ànd ak euh, Aïssa Rassoul moo ko doon di nasal moo ko defar lépp te Ndiolé taal ku nekk xam ne ne Ndiolé taal du dox ci fumiste du dox ci rambaaj du dox ci ngistal te nag Ndiolé Tall dafa nekk référence. kon Aïssa Rassoul mënta def ci xew mi lenn bal takk bal bi takk ci kawam ndax ki ki nekk ci ginnaawam a tax bu ko defoon rek ba kon ñëpp dinañ ne déedéet ndax njoletaal dafa nekk nit ku baax koo xamante ne nii. Aïssa deful dara ay Aïssa lu mu def. mais euh, ay teraanga am la yor. dama gis dama gis ay ñenn ñi ku ci mel ni am zozo ci Suède euh, wax ci def ci ay vidéo ñenn ñi aussi wax ñi nga xamante ne bii ñoom xew bu amee dañ koy analyser. xam nga kooku mooy les chroniqueurs da xew. analyse euh, ñi def analise ci xew nee nañ ay Rassoul dafa waroon a ñëw <coughs> jël ay teraangaam jox ko miis na ko mu dem yóbbu waru woon a ñëw ber langu boppam. moom moom mu toog di ko critiquer ak di yàq Aïcha Rassoul na dem defini kon Aziz Ndiaye jur doom mayeku mu sëy juróo doom takkoo jabar ñu la nga sëy lu dul bëggoo lu baax doo def lu baax doo wax lu baax nga bëgg ne yow nga bëgg li xew senegal nga di ko lijjante ak di ko critiquer loolu mënut a nekk Bamba. <laughs> mais mais mais yow mais yow maam man damaa bëgg juste nga analyser kooku li mu wax dëgg la wala du dëgg. Eh, dama ne li ma wax laay waxaat moom mi ko wax takkut jabar jurut doom maye. ñëwul Sénégal te at na du neex ba mu ñëw Sénégal lan mu ñëw lu ñaaw la am di ko def. nit dangay def lu rafet ak di wax lu rafet ak di boole ay nit. problème bi loolu la nit dangay boole ay nit bàmbat di def lu rafet di wax lu rafet. waaye yor koy goo jigéen bi nga doon bon ba bëgg a dee di wax wax ju ñaaw naan xaw ma euh, kii Aziz Ndiaye bi nu mu tudd sax. nde kii rek Aziz Ndiaye bu jigéen bi la sëf yëfi ah. nee na tant que moom mu ngi ci kër ga rek kër du am jaamu sa càmmiñ bu loo takkal jabar tegal la présenté la ko sa jeeg ba jéeg bi may la jàmm ba bàmba nag bu xew dikkee doo làqatu da ngay fësal ne kii sama jeeg la te kooku loolu la def luy problème bi. dafa fësal ne kan jéegam la. dafa fësal ne ñoom ñaar ñëpp ay ay jéegam lañ. maam dinaa ñëwaat ci yow. ñëwaatal ci man. <laughs> allo salaamaaleykum. Fama. maaleykum salaam Bamba na nga def. waa keñ Fama. Assane tur ci people bi di xaaraat mbiru boos bi foofu moom fokk ma débatté. dégg ñu dégg ñu. d' accord actuellement waaw mu ne mbiru boos lay xaar donc ñu ngi ci actuellement ñu ngi ci Aziz. waaw Aziz laa bëgg a tuuti. Mhm. Aziz man dama koy delloo njukkal di ko wax ne que dafa nekk référence ci góor ñu bari. Mhm. ma benn kàddu rek moo ma gën a dawloo démb sama yaram ci Aziz mooy bam ne bi may ànd ak sama jabar cinq mille la am cinq cent mille yi ma ko takkee sans papa dama ko bëggoon a may ma ne ko lebal ma ko mhm. papaam lebal ko ko mu takk femme bi mhm. ak benn témoignage bi mu def ba mu demee ba papaam ba këram yàqu mu bëgg a delloo ji papaam ci waawoon jabar di ne ko ñëwal ñëwal sa papa dëkk ci sama kër gi man ma ànd ak yow dem lu ji néeg mhm. lu jafe man démb dama xoolaa sama bopp ci témoignage su Aziz Ndiaye yim defal jabaram ji génn àddina pour ni jabaram ji mel pour man ma jéem ko mel mm-hmm. su ma ko melu sax ma ko yokk mm-hmm. mu defaat benn témoignage ne sama jabar actionnaire la ci samay alal ndax bi may uh, am bi may ñàkk nit woon bi may am lépp moo ko def ba génn àddina góor ñu bari xoolatuñ loolu ci digganteeg seen jabar ju génn àddina ci seen alal mm-hmm. wëlbatiku delloo njukka ay doomam jëndal leen këru trois cent millions ne actionnaire lañ am ci sama alal moom sama soxna si génn àdduna ak ay doomam. Hmm. bamba mooy lu jafe ci actuellement lu góor ñi war a roy ku nekk ak sa jabar ba yàlla def mu génn àdduna.